leneen li ci topp mooy li moom li muy wax ci wàllu tajwid ndax loolu tamit dama ne lu mat a bàyyi xel la yàggul dara am na waxtaan woo xam ne ñoo ngi ko séq ak benn jigéen ku ñox ummi caare maa ngi ciy wax lu mel noonu te dinaa koy faral di wax nit ñi di leen ko bàyyiloo xel alxuraan maanaam di def ay concours neexal baat ci alxuraan mo xam mi jigéen ñi moo xam mi góor ñi lum ci mënta doon lu ne loolu dafa taxut a jug alquran am na li wax ci biir wax ji loolu mooy soloy alquran alquran mbir la moo xam ne nit ki ko bi ma wax alquran ordre de mission la message la boo xam ne yàlla daf ni koo jox ñun message boobu moo tax yonent bi moom ci boppam mu doon messager ndax moom moo ñu jottali message bi moom jottali na ko ba message bi mat moom dem na message bi moo fi des message boobu nag ginnaaw bi fi yonent bi bàyyi ko ay nit créer ay règle tëral ko créer loolu ñuy wax tajwid créer ko ay règle ay nit di ko jàng ñu dem ba yegg ci foo xam ne dañ cay def ay concours ak naan diw moo ko gën a mën ak diw moo ko gën a mën loolu muy ku jigéen keeg muy ku góor ki ñoo ci bokk yem dafa taxut a jug alxuraan alxuraan ak fàttali ci ñun alxuraan ak fàttali la ci ñun alxuraan ak xuppe la ci ñun alxuraan yàlla waxul ne da koo wàccee ngir ñu ciy concours wala ñu ciy xool ana moo ci gën a neex baat ndax damay wax ne loolu ci ñuy tuddoo islaam kese ci ñoom ngay gis xeetu maa ci ñoom ngay xool xeetu maanaam xeetu matadi googu wala xeetu dese googu comme ci mën a doon ci ñun ñii su ñu yónnee ab message ci sa téléphone message boobu doo ko jël di ko wëy da koy liir xam liñ ci wax la nga ca wara jàpp nga jàpp ko ci sude lo wara doxé nga doxé ko waye ñun yàlla yónnee ñu ab message wax yonent bi neko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun li yaddabbaru aayaatihi wa li yatazakkara ulul albab neko li de ab téré la buñu barkel wacce ko mu jëm ci yow ngir ñu sétantal ay ayam ak ngir borom xel yi fatali ko waaw léegi yàlla su wàccee ab téeram ne lii moo ko tax a jóg seetantal moom xaajuñ koo jege yeneeni téere lañuy jël di ko bàyyi xel a ko xool ay waxu yeneeni nit lañuy jël di ko bàyyi xel a ko xool la yàlla wax ne moo tax a jóg ab téeram defuñ ko seytaane ñëw jaar ci ay nit créer ay système ñu créer ay benn système bi ñuy wax tajwid créer ko ay règle tëral ko ñu dem ba légui di ci def ay concours nga gis fi nit ñi dañ koy ndamo ah ñun ñoy champion ni ñun ñoy nangam té lool taxu ta juk alcorane alcorane liko taxu juk suñ ko doon def mën na wax né suñ société yi police képp mën nañ ko fay baña a soxla police mën nañ ko fay baña soxla alcorane la ko tax juk suñ ko doon bayyi xel ba xam ko di dundé dunde di police képp mën nañ koo bañ a soxla ci suñ dëkk yi waaye imagineel yàlla yónnee ñu ab message message boobu nekk suñu ordre de mission ci mission bi nga xam ne ci moom lañu nekk ci suuf ñun ñu jël message boobu di ci def ay concours wëyëg génnee ci ay règle ci nuñ ko mën a wëyee ak wëyin wa naka la war a demee ak yooyu kay moo leen war na lii ak ndese la lii dese gu mat sëkk la kon du problème mu jigéen ji yëkkati ko wala góor gi yëkkati ko lépp ci bokk yam moo xam ñu def ko ci réseaux sociaux yi moo xam mu doon concours lépp ci bokk yam taxut a jug alxuraan nañ jëm ca la ko tax a jug bàyyi ko xel xam ko mu leer ci ñun ñu dundee ko mooy li ñuy wax da ngay gis fii tamit soo ñëwee ci réew ñu naan dañuy wàcce alxuraan nangam mais alxuraan wàcc na ba pare li fi des mooy ñu wàccoog moom mooy lañu li nga xam ne suñu borom moom la ñu ciy wax ñu jéem koo xam jéem koo dunde jéem koo jëfe suñu ko defoon rek weesu nañ fi ñu toll li tax ñu taxaw fi ñu toll ba tey moo ñàkk a bàyyi xel message bi ñu yàlla yónnee jël créer yeneeni système ci wet gi di ci doxee noonu wan ginnaaw li nga xam ne moom la ñu yàlla wax ne moom moo tax mu wàccee ko kon lii du diine yàlla parce que ñii faw ngeen xam ne ñoom li nekk seen diine yi bopp la te ñoom seen diine yàlla actionnaire minoritaire la ca ñoom dañuy wax ne seen diine de soixante à quatre-vingt pour cent nekkul ci alxuraan donc ñoom seen diine yàlla lim ca am mooy de vingt à quarante pour cent loolu la ca am ñoom seen diine yàlla moomu ko du diine yàlla yàlla actionnaire minoritaire la ci seen diine ñoom léegi nag nit ki yow yaay def sa choix ndax yow da ngay topp diine yàlla wala nga topp diine gaa yi diine gaa yi moom su ngeen ko dee topp moom xam leen ne fa ngeen jëm baaxut yéen ndax yéen diine gaa yi. dafa bëri luñ leen ci waxul ndax da ngeen judd rek doon doonu benn affaire ñu koy wax bind ko ci ay téere jàngal ko suñuy maam suñuy maam jàngal ñu ko ñu nekk ci loolu gëm ko di ci dundu nga gis ñoo xam ne loolu lañ jàng ba ñuy nekk xale lu nit wax ñu ñëw naan waaw nii nàngam te li may wax nee naa leen ñun li ñuy wax ba ba ngeen ni dee ba ba ngeen ni dee du ngeen am preuve bu ciy dindi virgule te yéen li ngeen gëm du ngeen mës indi ab aaya bu ko saxal mënul am du mu du mës a am da ngeen a jàngal loo xam ne lañ leen ca wax tuuti la lañ leen ca waxul moo ëpp